waxay suma faat foofu xam ne raw na talaasu rakkaat ñetti rakk min xaaj tisbaar fokum jógal bi xëyri takk biirin ci dul kàbbar wa aat te nga dikke fatihatan fatiha wa suurat aku saar suran ci yalu ta ummoo da nga ko jublu wal taj li sante nga toog walta te suxat te nga taaya fi mu tolloogun mooy tisbaar ñetti rakk moo ci raw kon bu mujj ba képp nga fekkee ba ilimaan sëlmali da ngay tàmbalee ci ba mu la njëkk rawee kon boo jógee ba taxaw doo wax allah akubar ndax ndegam ñett moo ci raw kon benn képp nga ci fekke ngay jékki-jékki tàmbalee jàng fatiha boo noppee teg cew saar te yellu ko bu rakk boobu jeexee na nga toog foofu taaye ndax yow sab ñaareel la rakk boobu maanaam moo nekkoon benn bu njëkk waaye yow ab ñaareel la soppi ko ci yow da ngay toog foofu nag taaye nga seetluwaale nag doo seet ni fii ilimaan toogu fi woon man du ma fi toog mbaa fii toogoon na fi danaa fi toog déedéet yow fu doon sab ñaareel rek toogal foofa du teen rakk bu ne moom lam ci jàng nga ci jàng rakk bu mu jàngan fatiha ak saar da nga ci jàng fatiha ak saar rakk bu mu jàngan fatiha kese da ngay jàng fatiha kese wala taqum na nga jóg faji te nga dikki bi rek xat ci ab rakk bi ummi zikri ci ndeyu alquran te mooy fatiha wa suurat aku saar duuna juloo sin ci ab jataay yajur yi bopp dana daw mooy bopp dana xew rek boo taayaa taay digg ba jóg ba taxaw rakk bi nga taxaw ñetteel la ci yow waaye dafa doonoon ñaareelu ilimaan moo tax da nga ci jàng fatiha ku saar te yàllu ko ilimaan toogal na foofu ndax daa nekk ñaareelam yow nag foofu bul fa toog ndax yow daa soppi ku sam ñetteel moo tax mu ne duuna julloo sin yëjëri su ma at yi topp da nga dikke bi rak xatin ci ab rakk bi ummihi ci fatihaam ja faqat dong mu sirran bir mu ngay aji yàllu ko fa tuttimma ba ngay mottali laa xalata amul benn njuumte ci loolu boo jógaatee rakk bi ngi mujj andi fatiha kese nga ciy jàng bu ko defee nag mu nekk sam ñeenteel fekk nag moo doonoon ñetteelu ilimaan kon fatiha kese ngay jàng ci rakk boobu teelu ko bu ko defee sa jul daal di mat waxasru naa sunu takkusaan al muhazzamatu ka di kuñ màggal min tamaamil qaamati mi ngi tàmbalee ci matuk taxawaay ba al muqaddamati ba di buñ jiital ilas firaarin ba ci ak gel fa nga waxam ne fa la muxtaarum tisbaar yam te mooy boo demee ba takk ndeer tolloog boroom takk ndeer bi foofa fa la muxtaarum takkusaan moom tàmbalee xamal ne kon muxtaarum takkusaan mi ngi yem ci boo demee ba takkusaan yi suuf jant bi bëgg a soo ker yi jàppaloo boo xoolee naaj wi mu mel dafa xaw a xong maanaam na mu weexe woon ci bëccëg ba defatu ko ndax léegi jant bi day bëgg a so te mi ngi jëm ci xong naaj bi itam xaw a xong foofu nag fi la muxtaarum takkusaan yam buñ ne muxtaaram mi ngi yem ci gelu suuf si nag moom takkusaan daroor yoom moom moo tàmbalee foofu nag ba jant bi so jant bi soyee rek daroor yoom jeex na nga xam ne kon ñaari waxtoom yépp jeex na waxiye moom takkusaan fil qadaay ca fay ga mislu zuhri kam tisbaar la xarfan ngir muy aw araf bi xarfin ci aw araf fal takkun na nga nekk za fikrin di boroom xalaat za fikrin di boroom xalaat nee na takkusaan nag moo ko tisbaar ñoo yemoo rek ci bu la ci benn rakk rawee ak bu la ci ñaar rawee ak bu la ci ñett rawee lépp lépp lépp ñoo ko bokkale xarfan bi xarfin mooy ñoo yemoo képp képp képp jëlul ñu koy teqale naa la bu la ci benn rawee mbaa ñaar mbaa ñett mbaa dara na nga ko xamoon léegi rek tisbaar lépp ñoo ko bokkale wa waqtul maghribi waxtu timis min ghurubi shamsi mi ngi tàmbalee ci sowuk jant ila maghribi shafaqi ba ci fàddu shafaq al munsaxibi say aji diriku maanaam say aji deñ te mooy raaf timis muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu la wóoree ne jant bi sona dana dema dem nag ba xong-xong yi nga xam ne moo des fa jant ba soye woon raaf xong-xong yooyu moo tudd shafaq fàddu shafaq mooy xong-xong yooyu raaf su boobaa foofa la muxtaarum timisiyam darooriyoom tàmbalee foofa ba fajar fenk mbaa nga ne ba nga xam ne sa digganteeg fajar di fenk genn julli moo fa xaj su boobaa ñu moomale ko gee ma mujj wa in yafut ka ndeem raw na la rakk xatun benn rakk min xaaj timis foqum jógal mu kabbiran mbir mu ngay aji kàbbar waji xarte nga biral bi suratin ci aw saar wa ummin ak ndey te mooy fatiha tilis bu la ci benn rakk rawee kon bu njëkk ba lay doon kon am nga ci ñaar boo jógee ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng bu ko defee nga jàng fatiha ak saar te biral ko bu rakk boobu jeexee nga toog foofu taaye mu daal di jeex ndax benn rek moo la rawoon waxay suma yafut ka foofi xam ne raw na la min xaa ci timis rak xataani ñaari rakka faxum jógal walaatu kabbiran tegul kabbar watlu na nga jàng almasaan fatiha wa suurat aku saar jëxran ci biral wa tajlisu te da nga toog baax da tey ni ci gannaaw yi la yaar bi salaami ànd ak sëlmal duuna may ni ci dul fen nee na bu la ñaar rakk rawee ci timis kon na ngaa fekke bu mujj ba ñaar ñu njëkk ñi raw la kon boo jógee ba taxaw doo wax allahu akbar ndax la nga fekk julli ilimaan benn rakk la kon doo wax allahu akbar boo jógee ba taxaw ngay jékki-jékki tàmbalee jàng fatiha ak saar da nga koy biral nag ba rakk boobu jeexee na nga toog foofu taaya ndax xam nga foofu sab ñaari lay doon da nga fekke woon nga benn ci timis kon boo jógee bu fay benn rek foofu day nekk ñaar ci yow da nga daal toog foofu taaya taaya digg boo jógaatee nag andiwaat benn rakk boo xam ne mi nekk nekk sa ñetteel du tee nga jàng ci fatiha ak saar tëgëral ko moom itam nga xam ne yow mooy nekk sam ñetteel waaye moo doonoon ñaareelu ilimaan kon nan ko xewoon rek doo seet ne fi ilimaan toogoon na fi faaw daa fi toog wala fi toogi fi woon du ma fi toog déedéet nga seet yow foo amee ñaar rek daal di toog foofa taaya loolu mën nga koo mën nga koo jàng ba noppi fàtte ko noonu ñu ko waxee ndax dangaa miin ñaaraa ko njëkk ñi tamit sësaloo kon bu ñu rawee ba ci mucc mën naa am loolu nga juum ci léegi nga jàng fe ba noppi juum ci mel ne nga jiite rek am ñaari rakk jub ba taxaw nga xam ne say loxoog say bëti woom taqalikoo naag suuf ñu sàbbaal la nga dellu si te laa waxoon ne la say ñaari loxo ak say bëti woom bu ñu xasee tàqalikoo suuf da ngay wéy rek te su jot su jootu xable salaam waaye li ci ëpp mbooloo mi la topp ci gannaaw moom dañ lay jumloo ndax li daal di sàbbaal ndax miinuñu loolu bu ko defee nga daal gaaw daal dellu si amal xishaaw ndaal gee fa maxiibu shafaqi mi ngi tàmbalee ci fàddu shafaq di sulusi ba ca sulus ba al awali bay aju jëkk fil muttafaqi ci lañu dëppoo muxtaarum gee mi ngi tàmbalee ci fa muxtaarum timis yemoon te mooy da nga ne woon xong-xong ya des ci sow ba fa jant ba sooy woon bu demee baraaf loolu moo tudd fàddu shafaq fa la muxtaarum timis yemoon foofa li muxtaarum gee tàmbalee danaa dama dem na bu guddi gi boo ko defee ñetti xaaj xaaj bi jëkk ba war a jeex xaaj bi jëkk ba yem rek foofa la muxtaarum gee yem kon nag saa yu nekk day aajoo kon nga xam fa guddi ga tàmbalee mooy fajant ba soye ak fa ñu noddi salaatu mi fajar fenk bu ñu nee jant baa ngi so ci misaal sept heures trente cinq jëm quarante bi ñu nee ñu ngi noddu salaatu ba tey cinq heures trente jëm noonu diggante boobu ngay def ñetti xaaj bu ko defee ñetti xaaj xaaj bi jikko bu fu mu yem rek xam ne foofu la muxtaarum gee yem daroor yi ba tàmbalee foofu nag ba fajar fenk fajar fenkee nag yaari waxtoom yépp jeex na wa in yafut ka ndeem raw na la rakxatun benn rakka min xaaj ci moom gee fokum jógal wala takun tebul nekk mu kabbiran di aji kabbar bal di fi nekk ji na nga dikke bi ummin ci ndey mooy fatiha wa suurat aku saar jahran ci biral wajlis te nga toog baadaha ci gannaawam walta tashahad te nga taaya wal tusallim te nga sëlmal tan fus kon nga sell su fekkee benn rakk moo la raw ci gee kon fekk nga ci ñett kon boo jógee ba taxaw doo wax allahu akbar ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha aku saar te biral ko bu tombe ba ilimaan njëkk julli yow nag bu rakk boobu jeexee rek nga toog foofu taayu sëlmal ndax benn képp leen rawe woon te mi ngi noonu wa in yafut kandeem raw na la rak xataaxaa ñaari rakkaam ña fal taxum kon na nga jóg mu kabbiran mbir mu ngay aji kabar wa jaxarte nga biral bi suuratin ci aw saar wa ummin ak ndey wala nga ne ak fatiha wala tamil te bul jeng ilal julloos jëm ci jotaay ba bay naxumaa ci seen diggante li kaw ni vii ngir nekku bi li ràkka saalisatan di aj ñetteel sa laajal man ka nga xam ne yakiisu dana ñaw dana ñaw mooy dana yeewu dana amuk yeewute bu lay ñaar rakk rawee ci gee kon ñaar nga ci fekkee kon boo jógee ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng fatiha te da ngay jàng fatiha ku saar biral ko ba rakka boobu jeexee nag si yoosam ñetteel la bul fa toog da ngay jógaat indiwaat rakka bu mel noona moom it jàng ca fatiha ku saar te biral ko nga xam ne yow sab ñeenteel la te moo doonoon ñaareelu ilimaan waaye yow sab ko na sab ñeenteel nga xam ne kon yow ñu see rakk walbatiko moo tax ñaar rakk yi nga fay ci gannaaw ilimaan yépp da nga caa jàng fatiha ku saar te biral leen ndax moo doonoon ñaar rakkaam njëkk wa in yafut ndéem dana raw min xaa ci moom salaas rakkaxaat ñetti rakka faxum jógal walaatu kabbiran te bul kabbar wa aat na nga dikki al umma ndey te mooy fatiha wa suuratan aku saar majju xoora tey ni mbir mu ñuy yaaru ñu biral wa xudan na nga jekki wa aati te nga andi tashaxudan taaya baax da jël sat ci gannaaw ab jataay daa wax ne gée bu la ci ñett rakk rawee kon benn ba ci mujj rek moom nga fekke kon boo jógee doo wax allah akubar nga jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha ku saar te biral ko mu mel ne mooy bala ilimaan njëkk rawee te bu rakka boobu jeexee na nga toog foofu taaya ndax yow day nekk sab ñaareel ilimaan toogu foon waaye yow day soppi ko sab ñaareel moo tax da ngay toog foofu taaya taaya digg su ma taqu topp da nga jógaat wata ji ta ngay dikkee bi rek xatin ci ab rakka bil ummi ànd ak fatiha wa suuratin aku saar jëhran ci biral soo jógee ba taxaw ci rakkam ñetteel da nga ciy jàng fatiha aku saar te biral ko li muy nekk nekk sam ñetteel ndax moo doonoon ñaareelu ilimaan wala ta ummate bul jublu li jël sa ñeel ab jataay bay na xamaa seen diggante ba li fi nekk xum jógal waji te nga dikke bi rek xatin ci ab rakka bil ummi ànd ak fatiha siran ci yalu tax ruj kon nga génn ci fay ga neen rakk boobu nga taxaw jàng ci fatiha ku saar te biral ko nu wax ne mooy sam ñetteel loolaa tax waroo faa toog ilimaan moom toogan na fa ba rakk boobu jeexee ndax ñaareel la woon ca moom waaye yow daa soppi ko sam ñetteel moo tax doo toog foofa da ngay jóg andiwaat rakk boo xam ne fatiha kese nga cee jàng te yelu ko ko defee nag mu doon sam ñeenteel nga daal noppi ca fay ga wal fuqaha way dégg yi fiq xadd sawwaroo melal nañu xaaxuna fii idraaka rakxatin jotub rakka xalaamaa ci kaw la nga xam ne xarraroo saxal nañu ko bi an yu makki na ci bu dëgëralee zuqati daayin boroomuk roy al yaday ni yaari loxo ya min rukk ba tey ñaari bati woomam mah imaamin ànd ilimaan muqtadan bu di bu ñu roy ñi dégg fiq nee nañu la lay xamal ne boobu ràkk bokk nga ca ba danga ko wàññiwaale ak bokkoo ca ba doo ko wàññiwaale mooy rek bu fekkee ne jàpp nga ci say wóom bu dëgër ànd ak ilimaan ba muy jàpp ci wóomam kon boobu ràkk danga ko wàññiwaale bu fekkee amoo loolu nag kon doo wàññiwaale boobu ràkk mooy amal la si ndaal ka nga xam ne la muy jit amut ak tam kii na dëgëral ga fa faataxoo kon raw na ko rak xatuxoo rakkaam ba yaqinan ci lu wóor koo xam ne daal ba ilimaan di jàpp ci wóomam àndut ak moom jàpp ci wóomam bu dëgër kon boobu ràkk raw na ko waxul waxal li ma ñeel koo xam ne adraka dab na imaamahoo ilimaanam fi tashahudi ci taaya te ko xum jógal wobba tadi te nga tàmbali salaata ka sab julli nee na ku fekk ilimaan ci taayam di mujj ci gàttal daal koo xam ne ràkk mujj bi nga fekke te fekke woo jàpp ci wóom ya loolu rek moo gën a gàtt kooku te ànd ilimaan ba ilimaan salmal mu jóg daal di wax allah akbar daal di susali ay rakkaam na mu war a susaloo nga xam ne moom jarul ñu naa ko toogal béréb sàngam defal nangam moom moom mënoon julli julli boppam rek ñooye moo waaye nag na mooy too jóg di di xaamaat ak dara ndax moom ni ko ñëw na ba ànd ak ilimaan rek daal di tàmbali ci julli gi bu ilimaan salmale bu jógee day kàbbar na wax allah akbar daal jàll na tegal ak julleem na war a tegaloo rek nu fàttalee ne waxtu julli yi moom am nag jàpp dal gu toll ne mën nga cee am calendrier bu mat ci at mi yëpp bis bu ne rek nga xam waxtu wa ngay julli julli juróom du aajowoo ngay seetati tegtal yi nga xam ne moom la ñuy wax noonu ci buñ ko dee jàngale faslul li ab dog la fil nafli ci naafila wa akkadoo fedli nañu an nafla naafila bu xaydal maxari bi ci gannaaw timis ci tan juróom benn rakk awis na tey ni wala ñaar xan xëyri nabiyin jële ci ngën ji ab yonante gannaaw boo sërmalee timis sopp nañu naafi la sopp gu dëgër a dëgër te loolu mooy lum néew néew nga julli ñaari rakka boo ko defee ñeent baax na boo ko defee juróom benn nag lay gën a baax sëñ tubaa ne daan digle gannaaw boo sërmalee timis nga julli ñaari rakka rak bu jëkk ba fatiha qul ya ayyuhal kaafiroon rakkam ñaarul fatiha qul huwallahu ahad ba tey daana digle julli farata goo sëlmal nga jàng qul huwallahu fukki yoon ak ñaar rek noonu waaye taxul nag mu wax ca dara ca lu tax mu digle ko wa arba'an ak ñeent qabla dhuhrin ci njëkk tisbaar wa ba'daha ak ci gannaawam ba tey sopp nañu bu baax a baax bala ngaa julli tisbaar nga naafi la ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal dooru julli boo noppee tisbaar itam nga defaat noonu julli ñaar sëlmal naafila tegaat ci ñaar sëlmal wa arba'an ak ñeent xabla asrin ci njëkk takkusaan laa ba àndaxaa du caagéenu ci gannaawam ba tey sopp nañu bala ngaa jul takkusaan nga naafila ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal door jul takkusaan boo noppee takkusaan nag moom foofu amul naafila ndax ñoo sib ku naafila ci gannaaw takkusaan boo demee nag ba jant bi tàmbalee sox te lépp soxagul moom day àgg ci araam naafila du yem rek ci sib araam lay doon bu jant bi sooyee ba lépp soo ba noppi nag te julee goo timis ba tey ci yoonu maali ñu sib ku naafila ba kera ngay jul timis ba noppi was tuux sinat rafet loof na taxiyatu nuyoo lil masjidi ñeel jàkk ja bi rakk xatee ni ci ñaari rakk inda kulli sanadin fa képp ku di ab wéerukaay sopp nañ bu duggee ci jàkk te nar a toog te fekkoo ñu taxawal farata wala ngaa toog nga julli ñaar rakk nuyoo ko jàkka ji boo xasee toog itam du tax nag mu raw boo xasee toog du tee na nga jóg rek julli ñaari rakk yi bu dee waxtu sib naafila mbaa waxtu araamal naafila moom doo mën a julli nuyoo jàkka soo fekkee ñu taxawal farata da ngay jékki-jékki ànd ci farata ji rek wax ne ni boo ko ci yéene waalee nag moom nuyoo jàkk ba ñu bindal la tuyaaba ja wal witru wetar ukki da feddleef na ko min baxlin xishaay ci gannaaw gee xan yabi rakk xaatin ci gannaaw fukki rakk ak ñaar kama xadd xuxida ni ki miineef ko benn rakk bi ñu tudde wetar mboolem julli sunna yi moo ci gën a dëgër dana ko wax léegi moom nag dañoo bëgg ko mujje soo ko mënee nga jiital fukki rakk ak ñaar torop jaateeg bi fukki ñett loolu moo gën su fekkee nar laa àgg ci fukk fukk ñaar wala boog da nga ko nar a ëppale it ba tey baax na waaye moom daal fexe rek bu mujjee wetar ndax dañoo taamu ci addis ba mu ne woon ijxalu axira salaatikum min al leyli witran waxuwa moom aakadu moo gën a feddliku xalal mashhuri ci la ñu siiwe min kulli sunnatin ci bépp sunna la tal jumhóori fa mbooloo ma benn ak wetar boobu kat mboolem julli sunna yi moo ci gën a dëgër fii mu nekk nii julli sunna yi boo ko dee wàññi boo weesoo wetar da nga cay boole julli korite ak tabaski ak julli muur bu jant bi muuroo julli muuru weer dañ caa wuute moom ak julli mbaaw yooyu yëpp julli sunna lañ waaye fi mu toll ni wetar moo ci gën a dëgër warak xatal fajiri ñaar rakay fajar mina raxaay bi bokk na ci xemem téef ya kama nas ni ki yaxale bi ci loolu dawal madahibi waroom ngir ya ñaar rakkay fajar lañ leen tudde raxibatu raxibatu mooy loo xam ne ki doon tëral yoon wi da caa xemem loo ni ki bi addis ba ne rakkatal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram su ko defee moom nag boo weesu julli sunna yi moo ci gën a màgg maanaam moo gën a màgg julli naafila yi kese kese yi rek ndax daa am julli yoo xam ne naafila kese lañ mel ne naafila yoor yoor wala naafila ramadan ak demee noonu wa sittun juróom benn aw sintaani wala ñaar aw samaanun wala juróom ñett istahabbaha sopp na leen arrahmaanu ajirami ji waxta duha ci waxtu yoor yoor bokk na ci naafila ñu sopp tañ feetliku lool julli yoor yoor mooy naafila yoor yoor moom na gën gaa néewum ñaar lay doon mën naa doon ñeent mën naa doon juróom benn waaye gën gaa bari nag moom juróom ñett juróom ñett moom bul ko weesu wa intaku ndem na ngaa nekk fi leeli ci guddi fal ijhaaru kon biral ga mooy lañu sopp aw kunta wala nga nekk fi nahaari ci bëccëg fal israaru kon yàllu ga lañu sopp xeet naafile yi moom loolu ab takk takk la ci bépp naafile booy def ci guddi dañoo sopp nga biral ko bépp naafile booy def ci bëccëg ñu sopp nga yelu ko wa karihoo sib nañu alkalaamu wax mu xëy da subhin ci gannaaw suba ila tuluuxi samsi ba fenk ko jant kul waxal ne axlaa rawante naag almanaam nelaw gannaaw boo jullee suba sib nañ ngay wax waxi àdduna dañoo bëgg ngay tudd yàlla ak a ñaan maa ngay jàngal quran ba leneen rek ci lu baax waaye sib nañu gannaaw julli suba ngay wax waxi àdduna rawante na nag nelaw lu may dangaa gëmmentu ba nga xam ne moom boo neluwul tam li ngay def doo ko xam su boobaa say ba nelaw ba noppalu ba mën a xam la ngay def waaye gannaaw julli suba moom su fekkee ne gëmmentuwoo dëgg-dëgg daal ñu sib nga nelaw wa in tusalli ndéem na nga julli ak subha suba fil jamaati ci mbooloo su ma jàllas ta topp nga toog zaakiran mbir mu nga aji tudd yàlla li taaxati ngir topp ilaa tulooxi samsi ba fenk ko jant kunte kon nga nekk misla man di kem koo xam ne xadd xajj aj na waa tamarate mu xumra fii daaga zamani ci joojee jamono boo jullee suba ci mbooloo xam ne julliwoo ko yow rek nga ko jullee ci mbooloo nga toog nag di tudd yàlla di tudd yàlla ba nga xam ne jant bi fenk na ba yëkkatigul toll ne ñetti meetar ci sa xoolu bët nga daal di julli ñaari rakka kon da nga am tuyaabay aj ak umra kon daañu la bindal tuyaabay aj ak umra yu mat yu mat yu mat na ko addis ba baamoo ngir feddle boo nekkee nag ci béréb boo xam ne mën laa xool jant bi boo xam yëkkatigu na lu mat ñetti meetaram déet da nga sey waxtu noddi woon salaatu rek boo ci tegee waxtoo genn waal ba suñu béréb yi moom dana fekk jant bi fenk ba yëkkatigu lu mat ñetti meetar incha allah faslu li ab dog la fi saw mi ci koor faridata siyaami yaari faratay koor niyatul mooy yéene wa fat joj dikk na wa kafuna ak sunuk fegu xan muftiraat ni walis way dog koor xolimat yooyu xameef na leen yeena koor moom mën ngaa gàttal ay farataam def ko ñaar dong benn bu mooy yéene yéene ji day aajowoo mu dogu di yéene juñ dogu ba noppi itam di ca guddi ga boole ci sooy nattable suba day bisu woor la am du bisu woor boo yéene itam du doy ndax yéene ji doguwut boo demoon tam ba fajar fenk nga door a xam ne kat bi tey ji bisub koor la li ki tey ji ci ramadan la itam da ngay bañ a lekk bañ a naan rek waaye bis booba koor ga du doy ndax ñàkk gaa yéene ci guddi ga yéene ji moom faaw ci guddi ga la war a amee kon nag boo yéene yéene ji dogu te yéene ci guddi ga bu ñu ne guddi ga rek mooy fajant ba sooy balaa fajar fenk diggante boobu rek muy waxtu yéene wi kon bu yéene ji amee la cee topp nag mooy nga bàyyi lépp loo xam ne luy dog koor ga la muy lekk muy naan muy tux muy jote góor a jigéen ak lépp rek luy dog koor nga bàyyi ko loolu mooy farata ñaareel bi suna nu foo sunaam yi atta dikk nañu talaata mbir muy ñett yàlla bi ba ñëw aji xellu temps jilu naa mooy sunu gaawe alfotoor a dogg mi ba at lu xoroo bi ci gannaaw soxog jant sunee koor ñett lañu ba ci njëkk nag mooy bu la wóoree ne jant bi sona nga daal dog fi saasa waaye nag na fekk nga am ci wóor ne jant bi sona booy nattable jant bi sona am suut bul lekk bul naan bul def dara luy dog koor bàyyil bu wóor li na rek sona su fekkee da ngaa dëgër bopp nag di nattable daal di dog ñu seet ba xam bu fekk gannaaw ba amaan nga ci lu wóor ne ba ngay dog fekk na jant bi so kon loola doy na waaye bu fekkee amaatoo ci lu wóor ngay fay bis booba dog bi nag mën nga koo gaawal rek mos tàndarma wala mos tuuti ndox ak yu demee noonu daal di gaaw julli timis ba noppi nag doo jëm ci yëfi aada yi naan kafe bu yàgg wala xeeti xéwal yi yàgg yi tax dañuy bañ boo dogee toog fa lu yàgg-yàgg soo tuut waxtaaru timis bëgg laa raw waxtaani ñaareel bi taxiiru suhóor yi mooy yeex xëdd lay leen ci guddi xëdd dañ koo fonk lool donte xiifoo maroo itam bëgg nañ rek nga sàmmu teg sunna si ba def ko nga def ko ba noppi nag yeexe ko lañ bëgg nga xam ne dëgg la sax bu mu ñu jotee rek maanaam bu guddi gi xaaje rek waxtu xët dugg na waaye dañoo bëgg na nga bàyyi bàyyi ba nga xam ne boo noppee ci xët bi sa digganteeg ñuy salaatu fukki minute rek moo fi dox ba juróom-ñett loolu rek moo ci gan taalisu aj ñetteel seen kaful lisaani mooy fekk làmmiñ wa xaw leen ci wax kon nga wax ne ñaareelu sunna bi mooy xët bi ñetteel bi nag kon mooy boo wooree nga téye sa làmmiñ ci jépp wax ju amul tuyaaba ne sax wax yi araamoon mbaa ñu sib leen moom boo tolloo jamono ramadan araam nga day gën a am doole day gën a dëgër sib ga gën a dëgër nga xam ne day waxtu yoo xam day màgg ba nga xam ne boo ci defee bàkkaar day gën a rëy weeru koor nag ci la bokk kon nag boo wooree nga tey soo làmmiñ daal jëpp wax ju amul tuyaaba loolu sunna la war a xaboo xemem loo nañu fii sabaxatul ayaami ci juróom-ñaari fan ya ax ni danaa jublu al ula ya nga xam ne taduuru danañu wëndeelu fil awaam yi ci at ya ne am na juróom-ñaari fan ñoo xam ne dafa nekk ci biir at mi xëy na sax du yépp sësaloo waaye sopp nañ rek boo ci àgg te man ko nga woor ko ngir yàlla ngir sàkku tuyaaba taxul nag muy li war ak sopp rek la taawun ab juróom-ñeenteel li dil xijja ti ñeel dil xijja dil xijja mooy weeru tabaski juróom-ñeenteel ba nag mooy bisu arafa biñ ne subal tabaski bis boobu sopp nañ ko lool ko woor bu fekkee nekk ko di aj boo di aj nag moom duñ ko taamu ndax dañuy bañ nga néew doole ba ya ngay war a def ci bis boobu nga xaw caa néew doole kasu rajabin ak kasu rajab kasu rajab mooy ñaar fukk juróom-ñaar ci rajab kaaf day firi ñaar fukk zaay raasayin di firi juróom-ñaar kon boo yendoo bëccëgu ñaar fukk juróom-benn ba ca topp nag di bëccëgu ñaar fukk juróom-ñaar sopp nañ nga woor ko jiimu muharramin ak ñetteelu fanu tamxarit tamxarit bu teroo benn ñaar ba ko ñetteel sopp nañ ko ko woor wax sub na nga limaale yaa ahu yaa ahu fukkam maanaam bisu fukkeelam la bëgg wax kooku nag mooy yow mu xaasura bisu juróom-ñeent bi ca la ñu reer cere yi bis ba ca topp nag di bisu fukkeel nag moom ñu gën a sopp nga woor ko bu fekkee nat laa boole ñaar yépp moom say boo woor bisu fukkeel bi wakkahu dil xiidati ak ñaar fukk juróom ci dil xiida dil xiida mooy diggu tabaski diggu tabaski boo ci amee ñaar fukk ñeent ba ca topp ñaar fukk juróom sopp nañ ko ko woor ya shahbaana ak fukk juróom ci baraxlu weeru baraxlu boo amee fukk ñeent ba ca topp fukk juróom sopp nañ ko ko woor waxaa u dil xijjati ak juróom-ñetteelu fanu dil xijja dil xijja mooy yor tabaski da nga waxoon léegi mooy juróom-ñeenteel ba mooy bisu arafa ba ko jiitu nag koy tuddi yow mu tarwiya mooy mooy juróom-ñetteel ba mooy xaaga xaa u dil xijja mooy juróom-ñetteelu fanu weeru tabaski bis booba tey sopp nañ ko ko woor xoo na ngeen wattu albayaana biral ga fa kullu man képp koo xam ne yadoomu dana sax fii saw mi xaaj seenu koor fasa yanaalu xastat na am kullama lépp loo xam ne yadoomu dana ko sàkku nee na képp ku sax ci woor fan yooyu ngir yàlla da nga am lépp loo bëgg incha allah wa kaana nekkoon na malikun al imaamu malik imaamuna kay sunu ilimaan yu diimu di saxal sawma addi xarfi jiimin woor li mu arafu ñett min kulli shahrin ci wépp weer sunu ilimaan malik dafa daan saxal weer wu ne mu woor ca ñetti fan ñetti fan ñoo woor nag mu baax waaye nee nañu moom da daan woor njëlbeenu fukk ya loolu mooy su ko wóoree ne tey jii la benn fan ca weer wa mu daal di koy woor suñu demee ba am fukk ak benneel mu daal di woor fukk ak benneel boobee suñu demee ba am ñaar fukk ak benneel mu daal di woor ñaar fukk ak benneel boobee nga xam ne kon li ñuy wax ci wolof ay kumte maanaam fukk bu ne ba ci njëkk loolu la daa woor waaye nag ñetti fan ñoo woor rek ci weer yi baax na fakkaana te mu nekk fii tadxi fi haaj seenuk ful leen ashri ba ci fukk bi fadlihi ci ngëneelul yàlla yàlla màgg na ka saw mi dëhri di mel ne ki woor jamono jépp nee na nag baaxub yàlla dafa tax boo saxalee weer wu ne nga woor ca ñetti fan kon day mel ne woor nga sa dund gépp-gépp ndax suñu boroom moo wax ne ku def benn bu baax mu faye la ko fukk kon nag xam nga ne weer moo mënta weesu fanweeri fan da koy manqué kay waaye mënu ko ëpp kon boo wooree ñetti fan bis bu ñu defal la ko fukk muy fanweeri fan te fekk nag nga woor ramadan boole ca loolu mooy tax soo ko defee at mi day mel ne woor nga at mi yépp boo ko defee sa at ci dund gépp day mel ne kon woor nga sa dund gépp wara xaboo xemem loo nañu fii sardi chehri rajabin ci toftale weeru rajab gasaani ki nii muharramun tam xarit xalal muntaxa bi ci lañu tànn weeru rajab mooy ndeyu koor sopp nañ moom nga tegale ko rek woor ko lépp benn yoon bañ caa bàyyi dara weeru tam xarit ba tey noonu sopp nañ nga woor ko lépp bañ caa bàyyi dara watis hu dil hijjati ak juróom-ñeenti fan yi dil hijja ay dan ba tey weeru tabaski waxan nga ci ñaari fan muy juróom-ñetteel ak juróom-ñeenteel dañoo bëgg na far bu weeru tabaski teroo rek nga tàmbalee woor bañ ni suba tabaski nga door a bàyyi xam ne kon juróom-ñeent yëpp ngay tegale benn yoon bi teroo rek nga tàmbali bala nga bàyyi nañu ne suba la tabaski nga door a bàyyi wagadaliki nii jumla du chambaana mboolem weeru baraxlu uxiza jàppeef na ko la dayhim fa ñoom